ko santaane donte suñu la lammee lott ci doon ko jottali ñu jëm ci ko moo ci ci kon ci ndigalu sëriñ bi ndax wax ci kanamu sëriñ bi dafa diis ndax waxam jotaay bi toog xam bi mu doon booy yëkkati ci turam xaw mu gis yow kon ñu mi ngi nuyu bokk jur yëpp di nuyu bokk réew si leen dokkeel ci weeru tëdd di weer nga xam ne ñëpp xam nañ yitte ak positif bi nga xam ne def na ko ci ngir fas yéene ko dundal ne ko ci ñu ko Sëriñ Tuubaa da dundale mu yóbbante ma nag ay kàddu jëme ko ci taalibe bi murid bi nga xam ne ñoom la suñuy digal sañ leen a tere kon kàddu yi ñu ngi jëm ci bokk taalibe bi dund ndax ñoom loolu rek li seq ñoom di ko jëmalee ci mboolem mbokk jullit boo xam ne ñoom ma yaqbaluuna nasiihata min axiihi muslim kon mooy kàddu yi nga xam ne jëme na ko yi nag mooy ginnaaw bu ñu sante ci li yoon si lépp mu am tuuti ay leeral yoo xam ne ko fas yéenee jëme ci bokk bi yi ngir ñëpp maase ci xam ab tolluwaay ak fi mu toll ak fi nga xam ne fi la nekk loolu itam dafa war a leer ci ndax ku fi nekk Sëriñ Tuubaa li la war mooy santaane digle ak tere loolu rek nga seq mi nit ñi taal bi itam li ñu seq ak ñoom mooy samihaanaa wa ataanaa loolu rek lañ lañ am ci suñu digg mooy lépp loo xam ne sëriñ bi santaane na ko rek boobaa amatul li seetaan la maa kaana wa maa kaana li mu'minin wala mu'minatin idaa qadaa llaahu wa rasuluhu amran an takuuna lahumul xiyaratu min amrihim kon lépp lu mu santaane rek jëfi liggéey lañ ci war a bi nag mooy leeral rek mooy fi mu toll ngir xam ne lépp loo xam ne dégg na ko. muy loo xam ne war naa andi ay rëng-rëng yi war a andi sensibiliser ci biir réew wala adduna si fam ca nekk ak fam bëgg ñëpp ne fa nee na moom fi mu nekk fii la bokk jur yëpp ne fa fa la yéene mooy ñëpp maas yi ca xam ne lépp loo xam ne luy indi fitna ci biir réew mi na ko ñëpp wattandiku te sax jàmm te xam ne Serigne Touba. ci loolu la nekkoon ci loolu la lool la santaane woon ndax lu ne mos lu ne def nañ ko ba tey waaye li ñu ko mos a def li ñuy wax mooy jéggal nag kon Sëriñ Tuubaa na xam ne lu ko ñuy xuloo lu ko li nga xam ne nag mooy li xam ne bëgg na ñëpp ko muy lu a leer ci bokki jiw bi nee na daa bëgg ñëpp maase ca xam ne nit balaa doon ab taalibe day doon julli noppi mm. nee na kon li ñu war a njëkk góorgóorlu mooy fexe ba sunu njulli ba sunu njulli wér bu suñu julli bi suñu taal bi dooru mën a wér waaye nee nit du du mën a doon taal bi te doon ko julli ba kon nag nee na fii lislaam toll ci ràgg nee na ñun tëluñu lenn lu weesu fexe ba lislaam yëpp nekk yoon say waaye lépp loo xam ne koy xajjee nee na moom tëluñ loolu te fas yéene bi yëpp maase ci nekk la ko xam nga daal eh, li war a nekk yiteen yiteen ñëpp mooy fexe ba lislaam bi ni ko rasulullahi digle moom nga xam ne leer na nañ ñi ne nag amul lenn lu ci lënt ñaar lu ci lënt rek ci doomu aadama la waaye suñ borom li mu santaane wàcce ko ci alxuraan lenn lu lënt néew ci kon nag ne ñëm ne ñëpp maase ci xam ne ndegam mel lënt amul nag kon li ñuy war a def góorgóorlu mooy fexe ba góorgóorlu ci lislaam jiwér taal bi jiwér Sëriñ Tuubaa itam ñu xam ne dafa doon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam doon gi mu doon rasulullahi sallallahu alayhi moo tax itam bañ na ko ba dafa tudd ko xam xaadimu rasul xaadimu rasul nag mooy jëw nañu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon lépp a tàbbi ci biiram kon mboolem tarixa yëpp itam eh, na ko sëriñ bi daal santaane ba nga xam ne nag sëriñ Tuubaa daana joxe wérdu xaadir daana joxe wérdu tijaan ak asasadi ak yeneen yi ci kon loolu li ci jëf wax ko ci laaj yi nga xam ne gouverneur général laajoon na ko itam na ko ñan ñooy yoonu murit fu yoonu murit juddoo fan mooy baadoom lépp géntoon lislaam daa wax ne képp kuy wax laa ilaaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam eh, na nga xam ne ci ak njabootam boobu nee fu julli nekk tam fa la eh, fu fu ne rek ñoo di kon Sëriñ Tuubaa wutul wutuloon ci kenn koo xam ne mbokkum julli ci loolu itam fonk gi mu fonkoon rasulullahi sallallahu moo tax képp koo xam ne fonk nga Sëriñ xam ne boo bokk ci njabootu rasulullah sallallahu rek wa sallam bokk nga ci njabootu Sëriñ Tuubaa waaye nag boo dugg ci njabootu rasulullah wala eh, amoo xamoo lay rasulullah sallallahu alayhi loolu doo maa tàbbi ci biir ndax Sëriñ Tuubaa loolu moo doonoon muhim am kon loolu na ko ñëpp xam médaille bi nga xam ne bëggoon nañ ko ko takkal itam la taxoon sëriñ bi gant ko dafa waxoon ne médaille bi nga ko ko takkalee loolu day eh, firndeel ne xajju xajjal ko dem ci biir islam kon nag sëriñ bi nee na loolu kon ñaanal na ko kilifaam yu jëkkee defoon ndax sëriñ Tuubaa ko santaane woon boo ko fi mas a nekkal ne itam si li nga ne xam ngeen ne 1979 80 bi nga xamee ne yu mel nii xewoon na te booba sëriñ Abdoul Ahad Mbacké moo fi nekkoon euh, sëriñ Moustapha bi fi ñëw àndoon ko moom ci xew-xew bu ne doon nii Cheikh Abdoul Ahad Mbacké taxawaay bi ne ñii di ci amoon. mooy xam ne ne sëñ Tuubaa bokku ñuy xoolal bokku ñuy xeexal ku ñuy gëm la ku ñuy toppal ku ñuy yaakaar la nee na comme moom tam da ngeen xam ne foofu rek ca la nekk dafa siiné ko wàcc ñaara bu dee ci digg mag bokk julli itam mooy ak xóotu islamique yi itam ñaara da koy fet bi ndax loolu la fekkoon rawatina nag ak Cheikh Sidi Moustapha bi nga xam ne mooy fu mujj nekk ci xalifu Serigne Touba ñaara ci nekkoon rek ci yaasal ko ci digg bokk julli yi Serigne bi nee nee na loolu képp la fas yéene wéyal mhm. ci mboolem mboori kër kër gi nii yëpp fas lépp àndaloo nekk benn nekk wenn say lépp lu ñu def euh, mu mu dëppoog lislaam lépp lu ñu def tam mu dëppoog loo xam ne genn lu ñu war ak jiw di ci am te soosay la fas yéene te kàngam nee kon ñu ngi ñaanal Cheikh Sidi Moussa suñu doom doole leen taasu ci barkeem kon nañ xam ne yoon yi nga xam ne waxoon na ko mu ñëpp dégg ko nee na li ci dolli ko war nag mooy jëm ci taalibe Serigne Touba Serigne bi nee na nga xamante taalibe yëpp na lim yéene boppam rek danañ yéene te moom wax na boppam fi mu wax na it ñu fas yéene dox dara desu nee na nag nañ xam ne yoonu wii di yoonu Serigne Touba Serigne Touba da ko ci yaar ak itam nee na kon nag képp koo xam ne yaakaar nga Serigne Touba na nga xam ne lépp looy jëfandikoo Serigne Touba yaar ak itam moo ci war a kon ñaanal loolu ñu koy digal taalibe ne ñëpp xam ne buñ tënkoo ci liggéey Sëñ Tuubaa euh, ne ne ci biir ak i teggin bi mboolem liñ bëgg danañ ko am bu fekkente ne wàcc nañ ko nag boobaa nañ xam ne lu leen te dal ñoo ko seen kon nag nee na ñu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan suñ borom dollu jàmm ci réew mi mboole xoli biir yëpp mboolem ñi nga xam ne ñooy Kirgistan bi ci biir réew mi tam suñu borom gën leen a boole ndax Sëñ Tuubaa waxoon na ne yaa rek daf nekk. إنما المؤمن الإخوة من أكتاها إن الشيطان لكم عدو من أنها من تاجس إنما المؤمن الإخوة إنما من تاجس إنما المؤمن الإخوة نهدي إن إنما إن الشيطان لكم عدو من غيا قلنا إن أنا نايخمة نيدكير الإسلامي دفعت بيجي مشان هورك ما شاء الله ويأكلون كم منها ده لو جيت لك كده في هنا فرقة بينكم ولا ما ممكن بيجي بيم فشل بيجي سينتوا fas na ko yéene àndal bokk ji bi fas bokk teel bi te teg teg ko nag ñëpp nag ci sunna Rasulullah sallallahu teg ko ci ndenkaay na Sëriñ Tuubaa te fas ko yéene fas ko yéene wàcc te fas fas yéene dugal lu bokk lu ci Sëriñ Tuubaa dugaloon la wala loo xam ne Sëriñ Tuubaa bëggutu mu tàbbi ci biir kon nag ngir bañ a guddal rek sëriñ bi naan ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ushake amna almashi babban wanda sai yi da ran gohan ma agari ba Thank you.